Wane Diamane ñu ngi fay bu baax. waa di ko souhaité Sénégal yëpp ñu ñaan année 2023 bi nekk année bi nga xam ne mooy effacer tous nos souvenir souvenirs quand même 2022 a été euh, de avec beaucoup de complications et la maladie donc euh, de nombreuses pertes di ko jaale adduna bi yëpp. pour le monde qui a perdu énormément de choses et euh, ñu dugg ci année bi ak mbégte ak suñu grand Youssou yàlla na continuer noonu ay ngëneel ay ngëneel yu bëri yu bëri yu bëri. waaw je suis venu soutenir mon père parce que comme moom lépp lu muy def daf ñu si dugal et c'est un plaisir on est là c'est un honneur pour nous waaw. loolu la loolu moom mooy liggéey liggéey bu baax noonu la demee léegi dara su baaxee ñëpp teg si la seen loxo so je pense que loolu la def quoi loolu la wane. waaye je pense que Youssou Ndour moom est-ce que am na fu fu rëy si moom fu rëy si moom waaw waaw donc xam nga waaye tout la moo ko may je pense que euh, il faut saluer ça il